comme ni nga ko waxee sànq rek dañuy dikk ci euh, procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak euh, bëttal gi ñu ko bëttal ba talaate ji di ñëw yamoo ak ñaar fan ñett ci weeru que mais atum 2023 euh, tey suba nag wuju woon nan waaye Ousmane teewul woon waaye bi ñu génnee avocats wax nañ lu waral ñu randal ko am na ñu ci ànd ak mais am na ñu ci àndul ki ci àndul bokk na ci maître El Hadj Diouf mi avocat wu ñu teewlu ko chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Dakar nee na atte bi waroon jàll tey diggante Adji Sarr suma cliente ak Ousmane Sonko dàq na ko ba talaata bii di ñëw audience spéciale ga xam ne moom kenn rek lañ koy atte lañ fay atte muy le 23 mardi prochain talaata bii di ñëw ñu war a waat tey xam ngeen amoon juróom-ñeent atte yoo doon am neuf affaires mais bii di ñëw benn lay nekk mooy audience spéciale nga xam ni Ousmane Sonko daa war a taxaw Adji Sarr taxaw Ndeye Khady Ndiaye taxaw seen avocat taxaw ku mën sa morom duma yéen ñëpp journalistes yi ngeen toog di seetaan sénégalais yi di déglu xam fan dëgg gi féetee waaye liñ seenu tey mooy am na ko daw bëre bi am na ko daw bëre bi di maître El Hadji Diouf talaata euh, audience spéciale euh, kon euh, ñu déglu maître Moussa Sarr mi nekkoon avocat wu Ndeye Khady Ndiaye naam Ousmane teewul woon kon ñu déglu avocat wu Ndeye Khady Ndiaye di metre Moussa Sarr ci lan moo waral tey ji ñu dàq àtte bi. na wax ci wolof mooy tey ñëwoon nañ ci layoo bi mais président chambre criminelle moo jël dogal dàq dossier bi ba talaata bii di ñëw. fi ko président chambre criminelle teg nag ci yoon la ko teg parce que yoon dafa ne 246 du code de procédure pénale ne buñ lay toppe ñaawteef boo xam ne chambre criminelle la diggante biñ la dégloo interrogatoire ak bësu atte bi war na am lu mu néew néew ñett fan te suñu cliente Ndeye Khady Ndiaye démb lañ ko defal interrogatoire bot set tey ñu programme audience bi kon au regard de 246 du code de procédure pénal loolu méngoowul ak yoon mu di lan mooy procureur dafa enrôler dossier bi date boo xam ne date bi baaxul parce que day salfaañe day jalgati yoon kon président tribunal pour li nga xam ne dañ ko jalgati mooy di ne waruñ ko mën a àtte tey loolu la réparé renvoyé ko talaata bi di ñëw. maître Moussa Sarr euh, wax euh, ci article 246 euh, bu code de de procédure pénale bi wax ni interrogatoire bu ñu ko defee client bi war a taxaw ci wàllu yoon il faut que ñu bàyyi ñetti fan yoo xam ne. daal euh, ay avocat am dinañ mën a sëgg ci dossier bi sànq sax euh, wax ji bu eggoon dina ne ni 400 euh, pages la am na ay audio am na ay vidéo yooyu yëpp nit mënu ko yër ci diggante dimanche ak altine kon balaa ngay dem ci dara da ngay xam li ngay dem mooy lan moo tax yoon nag dafa mayoon ñetti fan te diggante dimanche ak altine ñetti fan doxu ci kon loolu moo waral tax ñu daax ko li mu wax yëpp ci droit la ko teg ak ci ay texte joxe articles yi santaane loolu loolu tax tey bi ñu xëyee kii di Hippolyte Ndeye joxewul benn dogal wala mu ne diw na wax du wax dafa ñëw rek appliquer li ko yoon may rek ne nan ko dàq ba talaata incha allah loolu di kàddu yoo xam ne maître Moussa Sarr wax na ko El Hadj nag nee na euh, Ousmane Sonko dafa daw audience spéciale nag bu mu koy wax mooy bu bés boobaa benn rek mbir lañuy ñuy àtte mooy Ousmane Sonko ak aji Sarr léegi nag euh, ci baat boobu kii di maître El Hadj Diouf wax ci ni Ousmane Sonko dafa daw bari na ci ñoo xam ne dañ koy wax ak ñàkk wuy jéem. Euh, léegi nag moom moo xam les raisons ak li tax mu toog ne wuy jiwul di fàttali ñàkk wuy ji boobu ca Kër Masaar la ko njëkk a yëkkati mooy ba ñuy amal meeting bi ca terrain Yékini ci la wax ni egg naa sama terminus dossier boobu beneen lay wax waaye bii moom du mu ci wuy jéeti te logique boobu ne ba tey ji mi ngi ci parce que dafa jàpp ni lu bari ay caaxaan la lu waral loolu nag dafa am ñu dox ci diggante bi sànq maa ngi yi ki ma waroon invité pour mu mën a teew ak lu bari mun a mars 2021 bi mbir mi ne cet na lay man mënoon naa toog di lay ci dossier bi mais ñaari at bi mu doxee ci diggante bi ak yi ci xew yépp du ma jëlati risque di ci wax yi ci xew nag dafa bokk ci euh, dossier bi ay audio na ci yi ci xew nag dafa bokk ci ñan na woon ay témoin lan ñu ne Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëram ba fu ñu toll nii danoo jàpp ni ñoom dara xewlu woon bi ñu demee ba ci biir ab audio diggante Adji Sarr ak kii di Mamour Diallo feeñ na ci bi ñu weesoo loolu kii di euh, seeni Gaye di docteur bi foofu nag mooy point bi am solo ci mbiri viol den ne viol li koy màndargaal mooy certificat médical gi dëggal ni euh, kii ab pëyam dugg na ci pëyu kii maanaam am na lu ñu seq ci wàllu sëy euh, léegi nag sëy boobu ci viol la ak nu mënti demee waaye certificat médical bi def na loolu amul certificat médical boobu la nag ñii layal sonk ñu bari ci lañ sukkandiku na viol la koy màndargaal mooy docteur moom moo koy firndeel ci ab certificat médical ne diw nii dafa egg diw fii te loolu bi moo ko waxal boppam démb rek maa ngi koy dégluwaat du loo xam ne dañ ko ko waxal te docteur bi tey jii fa mu nekkoon ba tey jii moom fa la ne. beneen bi ci topp mooy Adji Sarr mi ndey milli gi am ay ojo génn na mu dëggal ni audio yooyu ay ojo la ni dara xewul ginnaaw gi la ne dama doon fo ci kanamu juge bi. yooyu yëpp di daje nag ci benn dossier boo xam ne danoo jàppoon ni Ousmane Sonko moo def ñiy dem di dem di dem di dem di dem ba jamono di ko setal saa su ne depuis deux ans moom mu jàpp ni li warul dem fenn am na ñu ne mbir mi ca capitaine Oumar Touré la waroon yem maanaam ki yoroon enquête bi ca euh, gendarmerie moom ba ñu enquêté ba pare mbir mi foofu la waroon yem bi docteur bi waxee fa la waroon a yem am ñu jàpp ni yoon bii sax ñu koy yóbbu war ñu ko fa yóbbu pour plusieurs raisons parce que bu ñu ko tegoon ci yoon mais teewul juge Oumar Maham Diallo bi mu dégloo ñu mu war a déglu ñëpp ba pare dafa jël dossier bi. yóbbu ko ci chambre criminelle pour ñu àtte kii di usman Sonko loolu nag am ñu ne moo dalul xelam parce que dafa jàppoon ni dossier bi waroon nañ ko mën a dakkal neenal ko léegi am ku ne ma dafa war a wuy ji yoon maa ngi déglu ku mel ne waa forum du justiciable waa ji ko jiite mu ne dafa waroon wuy ji li c'est un précédent dangereux ëllëg nit mun nañ ko tudd ci yoon ba noppi mu ne du dem bu dee nii nangul noonu loolu Ousmane Sonko sama xel dem ci. mooy nanu benn kilifa bu ma doon waxtaanal barki dem ma ni ko moom dafa jàppoon Ousmane Sonko dafa war a wuy ji ma ni ko grand mu ne lan kilifa la nag ci nguur gi la ne ma ko dindil jëmmi Ousmane Sonko nga effacé ko yow nga jël sa tur nga teg ci place Ousmane Sonko nga xool ni doxalee dossier bi yëpp ma ni ko bu doon yow est-ce que du nga ko nangu mu ma mun a teg ma ni ko bul atteeti Ousmane sonk atteel sa bopp ci dossier bi yow maanaam nga teg nga jël sa bopp rek ne man Omar wax fi Adji Sarr jar ak audio yi jaar ak certificat médical bi yëpp nga lii bu boobaa nan ngay doxalee ci réquisitoire procureur bi Ousmane Sonko kii juge bi Ousmane Sonko génnoon na mu wax ci wax ju am solo bu demee ba juge bi yóbbu ko chambre criminelle ba teg ci ay kàddu maanaam psychopathe maanaam dem bay dikk ci personnalité wu nit ki ci koo xam ne tey ji atteeguñ ko xam ne président Macky Sall ci tabaski gi Assane wax bu am solo wax bu ma ñor te wax bu ma neex mu ne kiñ jiiñ te atteeguñ la da laa tuumaal rek. di nga noonu Macky Sall waxee bu ñu ko doon doxee ci ne rek tuuma la ñu bañ a egg ci dax ginaar di waxaale suñu soxla wala yenn ciy xew mais diggante bi li xew ci dossier bi ba 14 morts am ci kenn lijjanteetul 14 morts yooyu faatu alors ko yoon ni mënoon a sëgg pour dignité Adji Sarr mais morts yooyu faatu woon ci toll ci 14 mais ñoo ñu aussi danoo am ay dignité lu waral ñu ibbi ab commission ne loolu dañuy lijjanti ñoo ñàkk seen bakkan ba tey jii toll ci fukk ñeent la la leen Adji ëppale ak keneen ak keneen ba ñooñu tey jii ñu mën a egg ak ñoom foofu loolu tax des fois ñu bari daan naan lu tax demul lu tax wuy jiw lu tax lii nii lii lii mais daf ci am yoo xam ne deux mille vingt ak tey ji dafa dox ci diggante bi yoo xam ne tey jii la muy nuru yow doo xam lu mu doon léegi nag pour man nguur gi fi ñu daanoo foofu laay jeexale mooy danoo natt Ousmane Sonko peese ko ci mbiri Mame Mbaye Niang mbiri màmbay Mbaye mu nooy naka te ñaar yi benn parce que mbiri Mame ñaa kenn waxu la ni Ousmane Sonko bu mu dem ci yoon doo dégg nit ñi di ko wax dañ naan la diffamation mën nañ ko ci àtte waaye jarul tee nit kandidaa maanaam àtte bi amuñu ci problème mais le fait que diffamation kase ñaar ñu jokkalante ay kàddu ñu mën ci gàllankoor candidat wu koo xam ne ñi ëpp ci askan wi dañ kaa gëm wala ñu bëgg ko loolu la nit ñi amoon problème mais mais ñii danoo jàpp ne dossier bu fidd la boo xam ne tey jii jarul duma sa doom jarul lii sa doom lan moo fi jar tey jii ñu bëgg ko patam patamee gaawantu ko dem maître Abdoulaye Tine man bu mbir yi amee du ma juriste mais damay déglu borom xam-xam ñu ko Walf Fadjri nee na li dérange ñu bëri ci procès bi ba yóbbu Ousmane Sonko ci niveau bi mooy ci benn semaine nga programmé ci ñaar ñoo ñaari dossiers yoo xam ne maanaam ci avenir u nit ci avenir u nit waxuma bu Mame Mbaye mais nga ñëw ci boo xam ne tey ji waxuma rek Ousmane Sonko mi war a doon président wala dara mais pour honneur am dama wax ñett ñett ngi nii boo ko tumaalee nit mun nga jot jikkoom wala mun nga ko yóbbu ci niveau boo xam ne dee da koy gënal dund mooy nga jiñ nit ki dëmm te mu leer ko du dëmm nga jiñ nit ki ni dafa viole nga jiñ nit ki ni dafa faat bakkan te ñett yooyu mu wóor ko nii li liñ ko jiñ di dëgg parce que ñett yooyu képp kuñ koy jiñ maanaam lan la ci mën a fekk mooy kenn xamul lu mu doon maanaam dund gu yàqu maanaam nit ki nag bu demee ba toll ci niveau wu man mënatuma gagné mënatuma perte maanaam amatum lu may gañe ci combat bi mais amatul lu may perte nit kooku fan nga ko yóbbu ba mu sës te ci nguur gi daf ci am ñoo xam ne nan ma baal da leen di nax mooy makisal Sall côté boobu na xool mooy ndakaaru maa daan génne nit ñi tey téye naa sama loxo kenn du génn kenn du yëngatu keneen ak keneen yooyu des fois ñi wër nguur di xool seen intérêt nañuy bàyyi xel ci yooyu lu baax a baax beneen bi déranger ñu bari ñu ne xaw ma ndax dëgg la mais da ngay dégg ñu koy véhiculer ñu ne ki ko war a atti Hippolyte Ndeye la tudd Hippolyte Ndeye ñu ne du ñàkk am kum bokkal ci nguur gi am na ñuy wax loolu xam ma dëgg loolu du dëgg mais bu dee dëgg est-ce que loolu du tee xel koo xam ne responsable la à Ziguinchor di wujjeeg Ousmane Sonko ci wàllu politique élection yi passé rek daan na moom kooku bu bu ne frère am moo war a àtte Ousmane Sonko mais xelu Ousmane Sonko fan la war a dem moo tax nag mu làqu ji ci ay mbokkam ndaxte nag wolof yi dañ na yuuxu fa lay dégle mais làqatu ci ñi la war a téye te wolof yi dañ balaa ngay xam ni ab mbokk dafa baax nga am naqar bu boobaa digg nga gis ñoom ñëpp te pour man Ousmane Sonko position boobu la toogee léegi nag fekk talaata lu ne mën na xew ci réew mi mais dama jàpp ni des fois àddina ñaare fi mën a am lépp décision booy jël ndama ngi ci gàccee ngi ci pour man Ousmane Sonko li muy def peese na ko ba xam li mu ko mën a jural ak li mu ko mën a yàqal te day assumer les conséquences parce que àddina tamit ginnaaw comme dañuy dee rek nan dee benn yoon aussi kon Pape Djibril Fall nan nga gisee tey procès bi mhm. euh, ak dàq guñ ko dàq ak li mu jot a jur ci réew mi ñu bari jàppoon ni dara du xew nan ko jëli man ni jëli Vladimir Poutine ni mu jafee <laughs> dama jàpp ni jëli Sonko tamit noonu la jafe parce que waa dafa taxaw ne nan jëli Poutine nan jëli Poutine tubaab bi xool ko ni ko Poutine wax ko yomb na mais waaw moo jafe quoi <laughs> waaw. waaw am na solo man je vois que ne euh, comme ni ma déggee euh, avocat yi waxee ko c'est-à-dire da dat bi jege na tool te damaa dégg say kàddu aussi nga wax lu am solo mooy euh, nit boo xamante ni daa ngi koy àtte bëgg ko àtte si presque si deux semaine si ñaari ñaari kii def naa loolu waaw euh, lu ñu war a bàyyi xel la parce que état bi aussi wërta ba wërta concentré aussi jéem a euh, éliminer Ousmane Sonko wala dara rek ba jéem ko di ko di ko di ko teg fitna yi parce que Ousmane Sonko man gis naa ne fi nii moo gën a sonn Sénégal parce que li ñu ko tuumaal bari na mais nit ki aussi boo même bu dee demut bu dee dafa def euh, li mu wax ne moom dootul ñëw moo xam lee raisons comme ni ñu ko waxee mais aussi li ñu ko teg moom ñëpp xam nañ ne diis na aussi parce que parce que quelque soit fa ñun depuis li ñu jàppoon si début bi mooy euh, si euh, viol bi ñu ko wax niñ ko waxee ne tuum dañ koo tuumaal du amut noonu lañ ko noonu la ko nit ñi ñi si ëpp gëmee man noonu laa ko gëmee na deful dara dañ koo dañ koo tuumaal léegi aussi tamit bu dee Mame Mbaye Niang bi wax nga ko. na nit ñi bañu ñu dem mais pour ñu yàq bañ a yàq euh, pour mu bañ a nekk électeur moom moo tax nit ñi gën a ko concentré te effectivement loolu la bu doon diffamation kese la du yóbbu nit ki si ay 6 mois ak yooyu nga xam ne di nga yàq sa dootoo nekk electeur kon nit ñi duñ si am problème bu bu xëyee ñëppay dem tëddi nelaw mu dem mu dem mu dem régler ji affaire am te loolu aussi bu ñu koy def si si si si euh, ñi nga xam ne képp ko bëgg a nekk président wala dara bu ñ la tuumaalee dara mën a yàq sa affaire wala ñu laa tuumaal fenn pour pour pour yàq say mbir loolu kon euh, dëkk bi dara dox parce que koo gis ne bëgg naa nekk président rek kon buñ ko buñ ko fexelee état dafa am doole buñ la fexelee rek da ngay daanu te loolu aussi war nañ see gën a bàyyi xel Sénégalais yi aussi jóg xeex ko parce que loolu tamit lu am solo la parce que euh, nit ki waroo bu dee si yeneen pays comme ni ñu ko waxee États-Unis yooyu mën nga am problème yu bari du mais du la tax nga nga kii nit ñi ñoo war a choisir mooy sénégalais yi ñoo war a xool ndax kii war na nekk président wala kii war ta nekk président mais état moom amul pour droit pour génnee Eh, kii si présidentielle wala kii génn si présidentielle parce que loolu day indi ay ay problème depuis démb ak tey presque kenn liggéeyut. Mhm. voilà ni dëkk bi dafa ne selaw nit ñi liggéey te yooyu yëpp mën na ñàkk parce Sénégal fi jëm soxnañ leen leneen lu ay defenteeg yooyu nañ bàyyi ñëpp ñu dem si si jongante bi gañe ñu xam ne gañ nga ne parce que yàlla dèjà pare na ba pare mhm. léegi nag nit ñi gën a am discipline euh, parce que dèjà da ngay gis yu bari si réseaux sociaux yi Euh, ni ñu koy waxee si ñeneen ñi aussi ñuy joxe ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk di saagaak yëpp la ñuy wax ne di leen àttu noonu la ñuy aussi ñi nga xam ne ñooy wax si Ousmane ko wax yu bari yoo xam te ne parce que kilifa la bëgg nañ ko kon aussi booy wax si moom wax dina rafet dañuy bàyyi sax ba yeneen da gis ay xale sax yoo xam te dañ ci génn di si wax yoo ni loolu looy day delluwaat si ñoom rek parce que déjà nit ki tamit boo xam ne am na tuuma bu ñu ko tuumaal ñi si gëm ñi si ëpp gëm ne lii amut léegi bu ñu bàyyi tamit ñoom si côté nguur gi ay xale yoo xam te dañuy jóg di di dal ci koom parce que des fois da dugg ci réseau yi ñu li ñu koy waxal te mu am njaboot ak yooyu def naa luñ lu ñu war a bàyyi xel la mhm. voilà Sénégal kenn moomu ko ñëpp ñëpp ko bokk léegi li ñu war a def mooy bu dee tamit projet bi dina am nañ ko teg ci yoon ay àqam ñu jox ko ko ba mat léegi bu ñu ci demee nag léegi après ñu xam comme li nit ñi gëm bu dee euh, Adji Sarr li mu dul wax du dëgg mhm. moom xam naa moom <laughs> dina doy waar parce que lim tuumal Ousmane ko comme ni nga ko waxee crime la te loolu aussi tamit waruñu ko bàyyi n'importe qui di ko tuumaal ko ku la neex. walla mhm. jàpp. Ah, waaw jërëjëf euh, Omar ci li nga xam ni moom nga indi tey muy loo xam ne ñëpp la jaaxal euh, ñu def naa nag ñun ñu toog ci plateau bi ñëpp tey koo ci waxoon ndax bañ nga aji saar dalay wax bañu ma ko def naa ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun bu dee am nga rakk nga xam caf ka rakk ge ne ci xol xam nga ne aji saar euh, bu doon sa rakk la maanaam di fa dina bët boo ko xoolee ci yërëm ko ci bu jaree jàppale ci lépp mais tamit kenn ci ñun ci ku ci amoon rakk ju mel ni après bën bët nga koy xoolee ci rakk joo xam ni da nga jiiñ koo xam ne leader opposition la ci am réew viol viole def naa su ma ko déggee ci wolof mooy ku ñu seq ku seq ak jigéen te neexu ko yóbbu xelam yóbbu léppam ñor yor ñaari fital teg ko fee seq ak moom ak yu baree bari léegi ndaw soosu tey moom la ñu présenté waat mu ne ci réseau yi di sinap di lëmbal di tëyëx di takki fer di sol lu doy waar loo xam ni man jàpp ma ni jigéen ji ñu violé dina taxawee taxawaay boobu mu desaat ci it bi mu doog a commencé dama wax ni ñi ma waat sama loxo ni Adji Sarr li muy wax du dëgg duma ko waat mais sañ na maa waat ni aji sañ na maa taxaw ni Adji Sarr li muy wax man gëwma ci dara ñu dem ba yàgg am lu koy firndeel loo xam ni man ñi toog di àtte ñu ma ëpp ay diplôme te loolu mooy seen jàng xam nga man ba jàng damaa demoon jàngi ñëw boo ma joxee tissu léegi ma daggal la ko fii boo toogee plateau ñun ma kii ñaata mètre ñoo ko doy kii ñaata mètre kii ñaata mètre ku ci nekk ma mën a ñëw ñawal la te sax du ma la jëlal mesure loolu laa jàng léegi juge ak magistrat ñoom ñoo jàng woon wàllu xel ak xalaat ak kii bu waxee est-ce que wax na dëgg waxul dëgg léegi ñuy dem ba ndaw soosu ñu doon wax aji Sarr ñu déggaat ci ay ojo mu wax ni la gaa ñëw fi jour boobu mais seq ñu dara daa tudd ni diw moo ma def loo lii parce que xaalis la ma waroon a jox xaalis bi ñu ma waroon a jox am na fu mu jaar joxaguñ ma ko ba léegi xam naa ne bis bu ma génnee wax seen nguur gi dana daanu ba saaga ay nit léegi ci même audio boobu nga xam ne dañuy wax ne audio yi du xëy na compté wuñ ci parce que du preuve ci yu baree bëri ñu ni appuyewul dara ci dossier bi mais ojo boobu moo dugaloon ami collégien kaso ojo mm-hmm. boobu moo dugaloon Assane Diouf kaso audio boobu moo dugalaat Assane Diouf bu yàggul kaso ojo ngi bari na tey su ma defoon audio léegi mu fuité ma ne gars yi ne leen mars dem pale ojo boobu bu fuité léegi ñu jël si ma yóbbu ma kas parce que dañ koy jàppee preuve léegi audio aji yooyu nag nee na daroon foo mais loolu lépp grave amul ba amul problème ba tey mais ñaata kilifa la ñu tudd ci audio yooyu ak lu ñu leen mën a waxal ndax seq na ñoo moom seq ñoo ñoom mais tudd nañ leen ay tudd yoo xam ne tudd yu doy waar la ci biir dossier boobu ni dañ laale wala boog dañ koo jàppale wala dañ ko doon seet si wala daal ko xel ci wàllu xel léegi lépp après ñu ni garaawul du li nga xam ni moom mooy euh, preuve mm-hmm. tudd nga ko sànq médecin wax dëgg yàlla jàpp naa ne li ñu jàng waat ko te sànjoogu moo doon faral di wax ni dafa am ñaar bu ñu leen fooyee ci réew mi réew mi mu ngi tas mooy ki jàngee woon ba war a faj ñu gëm ko ak ki nga xam ne dafa doon àtte ñu gëm ñu gëm ko su ñooñu suñu leen weddee ci réew mi fan la réew mi jëm léegi médecin bi nga xam ne tey moo la war a xool xam li ne ci yow Sitor Ndour médecin moo xool ndaw si nii certificat médical ñu tëj ak euh, beneen waa ji nekk fii ki ñuy euh, jële woon fu nax ba indi ko France indi ko Sénégal muy nekk maçonnerie moom it dañ koo jiiñ viol ñu dem ba ci biir ñu ni laalu ndaw si ñu bàyyi ko mu dem xam nga ñu rap loolu moo leen moo moo leen moo leen setal waa mais léegi nan la ñëwee ci beneen viole boo xam ni nee nañu kii xale bu jigéen bi kenn laalu ko médecin moo ko wax man jànguma ko ñoom ñoo ko jàng mm. ñu ni médecin bi li mu wax du dëgg <laughs> waa mais loolu mooy sama problème viol amul léegi man sooy bu ma jàpp ni man att yi jiwuñ viol ba keroog muy leer defe naa xaw ma kan moo ko doon wax mais fa lañ jëm ak Ousmane Sonko maanaam taaj ko ba mu toog. waaw ba mu toog ñu leen wax d' accord seen leader bi daal violé wul am diyeelu d' accord parce que li ma fi génne yëpp ñoom génn nu ñu ko teg ci taabal yi ëllëg ñu ni Ousmane Sonko violé ne mais. violewul daal mais seen waa ji moom vrai kii daal caaxaankat la ndeke fii la nekkoon ci xale yi di kii léegi loolu lañ pour man loolu lañ bëgg dugal moo waral procès bi mais jàpp ma ni procès bi viol la ñuy àtte ndax li ñu jàng mi ngi ci kii bi ni wattu wattaaral maa ngi jégalu bu dee xaabaabal naa mais daal preuve yi tege daal mooy man gisuma viol daal. Euh. <laughs> Sandiogou. <laughs> waaw macha allah euh, waxtaan wi am na solo xam nga euh, li nga xamante ni bi moom la avocat yi xam nga saa moom avocat yi yaa ngi dégg noonu maître El Hadj Diouf mi ngi wax xam dafa xamul. parce que wax na ay ajeeg ñëw na jaagar jaagar yi na def na nii xam nga yooyu du waxtu wi parce que waxtu wi ñuy wax nag dañuy nekk waxtu woo xam ne booy wax ci dossier lu sérieux euh, da nga da nga da nga war a sérieux tuuti quoi parce que loo xam ni plus de dix-sept morts euh, causé na ko benn dossier quatorze la woon plus trois ça fait dix-sept yoo xamante ni bi génn nañ ci àddina ne sa reste nga respecté ñi nga xamante ni génn nañu àddina ci li nga xam ni mooy mbir moomu ba boo ciy wax mbiru ay jaagar jaagar yeeg def na nii def na naa yooyu yëpp dañ ko war a jël teg de côté. Mm-hmm. Eh, wax li nga xam ni moom mooy mbir yi. Mm-hmm. waaw mbir yi nag man ni mu demee dégg naa tey eh, ki nga xam ni mooy eh, kii avocat Sonko bi tamit wax ni moom pour soo Ousmane Sonko ñëw faaw. li nga xamante ne bi mooy sécurité ñu assuré ko pour mu mën a euh, ñëw mm-hmm. waaw loolu nag man moom laa doon wax son bi tey ci suba ne ko loolu moom dégg-dégg bi ma ci am mooy Ousmane Sonko du ñëw waaw parce que li tax ma dégg ci loolu mm-hmm. mooy buñ ñee euh, faw ñu assuré ko sécurité kan moo koy assuré parce que ñi ko koy assuré am ñooñu la njëkkut a wóolu. Mhm. parce que dafa am fu mu jaar ak ñoom. Mhm. muy ñi nga xamante ni ñooy takk der yi. Mhm. gis nañ ay yoon takk der yi ak moom euh, gis nañ li nga xam ni xew na. te ñooñu nag bu fekkee ne dañ dañuy assurer sécurité am ñooñul ñooy ñi nga xam ni ñoo ko war a kii muy li ngay wax sànq ci ne yegg nañ ci dossier bi terminus. loolu mooy li nga xamante ni bi moom jàpp na ni euh, fi mu toll dañ koy këllikalee di ko fooyee. parce que dafa am loo xam ne bi bu xasee ba nekk ci pénc mi am na ku doon wax démb ne am na ñu daan wax ne Ousmane Sonko dafa war a wuyu ci mais am na ñooñu tey da ngay gis koo xam ni da daan wax loolu jékki-jékki daan ne jaratu ko parce que li xew ci pénc mi ci diggante bi la. Mm-hmm. xam nga li xew te ñu lim ko fi sooy boo ngi ni lim na ci point yu bari. Mm-hmm. ci wàllu ay audio. ndaw soo xam nii moom ci jëmmi boppam moo waxal boppam wëlbatiku ne damay fa damay fa moom warulaa génne ci mball mi. na moom loo xamante ni moom boo waxee ba dugal sa bopp génn ci du yomb ci ne dama doon caaxaan. kon bu boobaa am na ñu bari ñoo xamante ni bi euh, mënuñu lool moom moo ko waxal boppam moom mi nga xamante ni bi moo doon tuumaal tey yorut comportement wu ku ñu jëf jëf jooju. parce que dañu war a respecter ñi nga xam ni jëf nañ leen jëf jooju. parce que am na ñoo xam ni tey loolu traumatisé na leen ba sax sëy. Mm-hmm. xam nga am na ñoo xam ni. Euh, fa la ñuy jaaree sax bootu ñu bëgg a gis góor parce que lu tax góor jaar na ak ñoom foo xamante ni fi jàpp na ni lii du yoon te du ci seen nangu ñu jàpp ni góor ñëpp sax nii lañ mel nga xamante ni bi ba tey loolu da leen di jàpp di leen indil ay jafe-jafe nga xam ni parensaay nit bu ci jaaree sax dañ koy wutal ñoo xamante ne bi ñooy toog di waxtaan ak moom ngir delloo si xelam boobu ba nga ni dégguñu benn yoon fu mu demee ngir ñu delloo si xelam man ba te it boobu ba nëgë ni ay garde da koy garde ñoo ñëpp ay góor lañ ay sécurité kii ak ñu ñoo koy lool donk moom euh, wanewut daal mandarga yuy wane ni euh, kat moom jëmm ji yooju euh, que ni daal ragal na góor ñi wan man daal li ma jàngat man li nga xam ni gis naa ko ah waaw waaw waaw da ngay ragal góor ñi hmm. waaye daal man gisuma ci li nga xamante ni bi mooy jëf jooju léegi nag dossier bii Euh, dafa nekk dossier boo xamante ne bii man gisuma njariñam te it pertement rek laa ci gis pour réew mi parce que dossier yoo xamante ne boo ko yëkkatee réew mi taxaw Pape Djibril wax na ko fi léegi ci yi nga xamante ne bii yëpp nit ñi liggéeyatuñ nit ñaa ngi stressé économie bi dexut yaa ngi dégg ñu bari ñi ngi am ay jafe-jafe waxuma la dara nag nit ñi di manifester ay mbir di yàqu ay nit di ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni bii mooy dossier boo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla euh, dossier loolu xam nga gis nga fi mu toll nii man jàpp naa ni lii yëpp président Macky Sall moom moo war a souffler récréation mbir mi jeex comprendre nga ñu avancer parce que loolu bu ñu jëlee mbiru dossier bi jël ko teg ko ci suuf pousse ko na leen ne ca leneen. bu boobaa peut-être que ni euh, nit ñi dinañ gën a féex te eppi nit ñi dinañ xam ni sax def na loo xamante ni bi lu rëy la pour ñoom te nag man dama jàpp ni jot na balaa mbir mi di dugg ci guuta goo xamante ni balaa ñu ciy dugal réew mi ci guuta parce que violence bii nga xam ni moom ngay gis ci mbedd mi moom laa doon say naan la nit ñi il faut ñu jàngat jeunesse bi ñu amee parce que gis nga ñun ñii dañ ñoo yar ñun ñii ñuy ay Omar ak Pape Djibril yi dañ ñoo yar ci ay balaa nga naan naam ne njariñ loo fekkee comprendre nga <laughs> waaw mais dafa am ay wax yu ñu yaree mais wax yooyu ñu ñu yaree wax yooyu xale yi dunduñu ko booy yi li ñuy dund leneen la booy yi di la wax na yow dangay gis xale bu ndaw naan la man samay sët laay prévoir yaa ngi dégg moom xool boppam naan dafa pare pour sacrifier wu pour ay sëtam ay sama bopp ma la gënal du bañ naa la booy nekkuñu ci ay sama bopp ma la gënal du bañ naa la yaay gis xale boo xam ne day taxaw ne man sama ruu gi bu dee Sonko mi mën naa jël sama ruu gi man dolli ko muy dund parce que moom jàpp na ni kii moo ko ëppal njariñ ci réew mi booy yi dañuy ñëw ne Sénégal rek maanaam loolu ñuy wax noonu du ay caaxaan ay Sénégal rek maanaam ñoom dañoo jël seen lépp ne Sénégal comprendre nga yëg ni réew mi dafa war a jóge fii dem fële ñu ne ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo war a doon mi ngi mel ni rek tey jii ba ci ay njéeréer ah njéeréer yi traversé leneen ñuy traversé ay dex ak ay kiiw ak affaire yooyu mais bu dee mënuñoo naaw kii yenn yi dañuy sacrifié wu yeneen yi taxaw ci seen kaw noppalu bu ñu noppaloo ba pare daal di continuer ñu continuer seen chemin mhm. nga gis ni euh, loolu luñ jar a jàng la nit ñi di jàppale te booy esprit boobu mooy bi nga xamante ni moom lañ yor léegi nag booy yi bu leen calculer ne booy yi dañoo ragal booy yi ragaluñu te nag boo leen toppee naan noo Moussa Diakhaté génn na fi fan yële passé daal di wax ne euh, ku kii ñu kii la ku kii ñu rey la ñi war a dee dee ñi war a def nii def nii xam nga wax yooyu xam nga wax yooyu wax yooyu wax yooyu kenn du ko wax ci am réew non wax yooyu bi mu ko waxee wax yu garaaw yooyu mais kenn boo ko gis mais dañuy yoxosu bu mbir yi xewee lu fi mu toll nii dañuy daw koo ci woo bu ko invité dégg kii la ñuy yor ci seen kër yi làqatu ci non mu daw damay woote ba sonn rek Euh, moo mun la booy. wóor na yàlla seetal moom nee na woon dootu ñëw fii da ko ko bëggoon invité. seetal li am solo moom moo xam. li am solo daal mooy daal. Sénégal daal wax dëgg fa yàlla liñ naan benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar <laughs> yàlla nañu yàlla defal jàmm waaye li nga xam ne moom mooy dossier bii daal man gis naa ni amul lu benn njariñ réew mi voilà. waaw eh, kii Omar euh, damay masaw policier bi ci ñàkk bakkanam ak ñeneen 16 yi muy 17. ci yu njëkk yi ak ci yu mujj yi parce que bu ñu sañoon événement yu mel nii du fi am sax ba kenn di ci ñàkk bakkanam franchement parce que ñu di dund yu dem demee noonu donc man man daal li ma li ma bëgg li ma bëgg wax mooy bi le dossier nañ ko évacuer mu jeex nit ñi nekk ci seen jàmm dellu ci seen activité waxuma la sax Ousmane Sonko waxuma la aji Sarr waxuma la keneen ak keneen mais nit ñi ñu ciy yàq seeni alal man loolu toujours dama koy déplorer nit ki xamoo nu mu def ba teg alalam nga yàq ko. nga yàq institution yoo xamante ni bu Macky Sall wàccee président Macky keneen kuy ñëw day recommencer waat à zéro on me ni euh, pour faire des omelettes il faut nga toj ay nen euh, ku mel ni Massa Ndiaye sama sama beau-frère moom loolu la may wax betti euh, toutes les grandes puissances am nañ fu ñu jaar balaa ñuy balaa ñuy développer wala balaa seen réew di tegu ci ci ci raay yi mais daal li ma bëggoon a wax mooy dossier bii nañ ko évacuer ñu may ñu jàmm ñun sonn nañ ci bile dossier. Mm-hmm. kon di ñaan jàmm rek euh, tamit comme li nga wax tamit euh, yàq yi xam na démb ci marché Jimbo bi ñuy taal dépôt ndakaar dem dikk bi benn waaye dafa ma di ma ko yëgal. na man dégg maître Moussa Diop naan sax dépôt boo ci hmm. kiiwam lañ ko kiiyee am mooy bis yu dawatul mais même bu bis yu dawatul sax bi metti na may teg ci dafa den ak marché hmm. si si gis naa ko parce que man am na ku ma woo ci marché bi ci guddi gi na man no neel wal fajri nanu kii na na nan lii nii kërëb kërëb xam nga tamit des fois fi ñu yóbbu moo baaxul média yi di ci wax ni ay Walfadjri ay RFM di def ay édition spéciale dafa baax parce que day tax lu lu xew ñu mën ko yëg mais bu dem ba dara mën a xew kenn waxu ci. yow réseaux sociaux yi. non waxuma réseaux sociaux yi non non daf ci am daf dafa am public boo xam dafa am benn public boo xam ne. non non mais rajo yeeg télé yi bilaay bu ñu waxul. Sénégalais ñi ngi informé wu ci réseau. non nga koy nga koy. waaw nga koy dund ci ci réseau. mais côté bi waxee wax gën a gaaw sa par rapport ak télévision bi waxul loolu de. maanaam xam naa fi muy waxee daal musaana xew son yi da gis. édition spéciale li média yi toog ci xam na foofu dafa am benn responsabilité boo xam ne di nga ko centre à l'antenne dina am benn filtrage bi am. Mm-hmm. maanaam ñooñu bu ñu demee ba wall Walfadjri jàlleetul loolu parce que mi ngi sóor Babacar Diagne parce que bu ko wanee ñun ko da ngay xamu taal. te 2011 ñoom ñëpp a doon def. da ngay taal. léegi dañuy bu ñu demee ba egg ci niveau boobu day am ñeneen ñuy yor information bi. te du xam buñ bojj ak buñ boxam duñ xam lu war a jàll ak lu warta jàll. loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel de di fàttali ni rek réew mi ne kilifa diine yu jug yaakaar na leen ci parce que mars 2021. kilifa diine yi ñoo réglé le problème. Ah, kilifa diine yooyu Omar mën naa am ngi wax rek ñu non non nan wax ci kaw ba ñëpp dégg leen parce que mars 2021 ci kaw lañ waxoon. Mm-hmm. te man li ma jaaxal mooy. ñi nga ajaratu Abdou Diouf. Mm-hmm. dafa am kilifa diine yi doon wax moom sëñ Abdou Lahat ak maam Abdou. Ablaye Wade dafa jege woon loolu tubaa nekkoon xaritu Cheikh Abdou Aziz Al Amin ba lu xew ñooñu mun na nu wax mais Macky Sall kan mooy wax ak moom. Senghor doon déglu ñëpp. waaw mais Macky Sall man sama problème mooy Macky Sall ban kilifa nga jàpp ni moo war a jug wax ak moom. Ustaz yi ñu ngi wax ak moom ak imaam yi. Ustaz ah, yaa ngi ca kaso ba xoola xoola yaa ngi gis kenn muccul ci nguuram ma te il est nag moom mu ibbi benn bunt ji nga li seet la doon wax ji nga gar ji nga bu euh, cin li nan koy footal bunt dañ koy afal mais tëj ba mën a ràpp. baaxul parce que bi éclaté mën na egg foo xam ne kenn xaaru ko kon mi ngi noonu di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ci réew mi jàmm mm-hmm. euh, di ñaan suñu borom defal ñu xewul yu euh, bari bari te tamit euh, ay moom baaxul. Mm. waaw kon mi ngi noonu kon. ajaratu kàddu gàngo ayca jaajëf Omar ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal également ñi ci indi seen xalaat ñëpp.